le retour fracassante de Adji mi yaa gisee futur ñaareel Zale Mbaye ki nga xam ne moom moo nekk Papichou Guewel dal leen ak jàmm mbokki internet yi ñu daal di ñëw ak yéen ci actualité bi daal di tàmbali ak ki nga xam ne moo nekk Adji Sarr Adji Raby Sarr nag daal di ne signé son comme ni ñuy faralee di ko gis nag moom à chaque fois que waa Pastef di wàcc ab programme comme nag seen planchement de projet bi depuis démb gis nañu ne moom kii di Adji Sarr moo nekk di lëmbe internet bi mu dal di koy ñu daal di gis nag benn vidéo ba nga xam ne mu ngi ciy apparaître trop sexy sol benn rob ba nga xam ne daal dina koy fant ba ca xool ba ti ci way naka wayu waali bi nga xam ne daal dina ci ànd ak ki nga xam ne moo nekk Amadou naan li ma moom maa koy jëli ji ñu bëri sax tàmbali di ci coupé ki nga xam ne moom moo nekk Ousmane Sonko ay potom di ko ci collage en tout cas nekk na la nga xam ne daal dinay viral lool ñu daal di ñëwaale aussi ci geste bi nga xam ni mi Mia Guissé def na ko aussi muy créer polémique mel na ne mariage en vue dafa am Mia Guissé daal mel na ne dafay nekk ak jëkkëru jàmbur loolee la xale yi wax gannaaw ba ñu ko gisee ci ab photo ba nga xam xam ne mu ngi ci ànd ak kii di Dieyna balde ci mariage am Dieyna daal di yëkkati benn baaraam bi wane ne aawa la Mia nag moom ñaari baaraam yi la tàllal wane ne moom daal jamono yuñ toll nii bu fekkee ne mu ngi ci relation mu ngi nekk ak ka nga xam ne këru jàmbur la donc nag ñu daal di leen fàttali ne moom moomee di Mia Dieyna Baldé daf ko magale woon bu kom ba tax nag ba muy dem ca xew ba li nga xam ne daal dina ko koy jébbal ci ay teraanga bokk na ci un million de francs fa benn parure en or bu yànja ak benn coffret mu nekk ay teraanga ya nga xam ne nag kii di njole la woo ngir mu daal di ko koy jébbalal njole aussi daal di xam ne ne loolee nekk na benn geste ba nga xam ne daal dina koy touché lool ndax ñi nekk ci dëkk bi yëpp mi yaa gisee daal di koy choisir loolee dafa nekk la nga xam ni neex na ko lool kon mi yaa nag na xam ni jiiñ na ko ka nga jiiñ na ko teraanga ja nga xam ne dina ko ko dal di delloo teraanga yooyee nag ñu daal di ñuy gis ne Dieyna Baldé moom daal dina xam ne ne kontaan na lool ci li nga xam ne Mia daal dina ko koy jébbal mais aussi li nga xam ne amaat na ci xewam boobee mooy jooy yi nga xam ne gis nañu ne borom këram daal dina koy def gannaaw bi ñuy wax ci way juram bu jigéen il vraiment aimé mu fekkee ko mais nag malheureusement jàmm ak pexem yàlla ak dogalam ñu daal di leen fàttali nag ne way juram bu way juram bu jigéen moom moom mee di biril ay jamono ci ginnaaw la daal di génn àddina ñu daal di leen tegtal vidéo yi nga xam ne daal dinay rotee ci xewam boobee te daal di ñëwaat jàll ca TikTok ñëw ci vidéo yi nga xam ne daal mu ngay lëmbee internet bi ba ca njëkk dox ca diggante Zal Mbaye ak ki nga xam ne moo nekk Papichou gannaaw ba mu ko doon yedd dal di koy xam ne nag am na ya nga xam ne daal nekkul yëf góor kii di Zal Mbaye nee na Papichou comme dafa yor numéro am te wee wee woowu ko téléphone seppi li ni mel ñëw ba ci TikTok bi naan da ko fi jéem a tendance moom aussi fa la koy tontoo mu daal di koy mettre en garde nag ne ko moom moomee di Zal Mbaye Papichou bu duggee ci géewu yàkkamte dina dina métti lool ca wàllam ndax moom Zal nday dundul bàyyi dundul doom jooyul jabar laajul kon amul dara la nga xam ne dina ko per perte bu fekkee te moom làmminam bi si jëmb om daf ko ragal amaanam bu ñu doon yàkkante mën na koo wax la nga xam ne du ko fàtte ilaa yawmi din wala mu wax ko la nga xam ne du mu sa fay kon nag na xoolaat bu baax taxawaayam gannaaw ba mu yëkkatee yooyu les kàddu ñu daal di gis ne Papichou moom aussi daal di nay def ab sortie daal di xam ne ne nag moom du nekk ka nga xam ne dafay yàkkante ak ki nga xam ne moo nekk Zane bay ndax rakam la daf ko def idolam donc nag ñi xam ne dañu doon toog di xaar clash nañu lemaat seeni basan te xam ne loolu duñu gis ñu dem déglu ji seen i kàddu ñoom itamit te ñëwaat. bisu nag kaay ma wax la ñaari baat ba bisu nga jël wax jërë nga suul ko joom nag jëlal jëlal wax ji ko ba mu ron ci moo gën a rafet ndax bu lam wax ji bul boo ko lemul ba mu ron yuuxu dina jëf ko foogewul te man daal mbay doom jooyul dabar laaju c'est bête encore mes mots doom jooyul dabar laaju dama ne nga jël wax ji nga teg ko suuf ba bi suuf man dara man yaay dundul baay dundul doom jooyul jabar laaju jëlal wax ji nga gas ko nga suul ko boo ko gasul suul ko yu am droit boobu ndax man papi suu juróoma jëndooma gin sa ginaar nenu ma suukaroo sama café xoromoo sama cun wax ji nag dama bëgg mu jeex ndax wax ji bu jeexul tubaarkàlla man daal mbay sama bii daal ñaaw sama bii dama koo ragal damay wax ba pare li may wax ay wax yu rëy laay wax waaw ah, kay 5 dollars 12 500 voilà yem na ndax man tubaarkàlla ma lu may daw sama laay doom jooyul jabar laa gis balaa yem nag waaw kay wax ji nag doo ko gëstu ko yuuxut na jub fuñ ko foogewul waaw kay six ay neuf nag. yow xam nga ne man duma ma kuy reculer man du ma kuy jënd glace man du ma te du ragal man tubaarkaal lu xale mën a wax midi bu ma génnee midi cinq wax la lu àdduna bi yëpp du dégg waaye du doon Papichou ak Zal Mbaye déedéet parce que maa taxaw fépp ne sama raq nga yaa taxaw fépp ne Papichou saa mag de sama idole la ñu seq ko nag dund ko. du ay waxu tele yi ak ay waxu internet ak ay waxu tiktok yi déedéet lu ñu dund la fanaan ci mer gàddu yi fanaan ci lal yi fanaan ci kër yi ak appartement yi bi la bi la téeméer tawee mille francs te la ci laa la jàppale ci laa la bëgg ci laa la respecté ci laa la xam ba fii may wax a yow kon tiktok bi ak yu xew ci jamono yàqante bi ak xuloo bi xeexante bi man du ma ci dégg duñ ma ci gis parce que maa ko mag ñi ma doon fekkuma leen fi géwél laa encore une fois ma waxaat la ko barki Serigne Babacar ku may xaar ci teesanteeg xuloo xeex et eh, kaay ma wax la benn affaire mbaa xam nga ne doomu géwél yëpp mën a xuloo ñëpp mën a xeex ñëpp mën a wax lu ñaaw mais dañoo toog. ñu daal di ñëw ci kii di maman vulgaire maman vulgaire nag moom mu daal di axtu ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam ne moom moo nekk Nogay Kara xamle ana lan moo tax bi yoon ba mu jugee ca Chine yëkkatiwul téléphone am daal di koy woo maman nag li nga xam ne jot na koo expliqué moo nekk ne moom ak kii di Nogay Kara dañu doon ànd sénégalais yëpp naan daf koy utiliser wax jooju nag mu dem ba sonn ci moo tax cette fois ci bi nga xamee ni dafa dem voyage ji ba ñëw indi ay bagages am mu focus ci jaayam bañ koo nogay di liggéey wàllam moom aussi muy liggéey wàllam nee na mu gis ne aussi sénégalais yi dañoo ëlbatiku di ko xasaat naan dafa soxor kon ñoom la doon déglu mais nag jamono yuñ toll ni décision bi nga xam ne jël na ko mooy dafay ko ci gis nañu ne macha allah moom maman liggéeyam bi mu ngi dox li nga xam ne nag daal dina ciy amaat ñu gis ne nogay dafa daal ëppal ñenn ci internet yi sax ñoo ko daal di wax nee nañ nag amul woon droit ci biir des mbir mu naan dafay xas kii di maman am ña nga xam ne nee ñu daal nogay kàddu mu yëkkati naan kaan sa golo ngay mel ne di ñu mbedd loolee kii di maman vulgaire la ko doon wax te loolee nekkul la nga xam ne wax na ci seen diggante ñoom ñaax maman nag waxoon na ko ay jamono ci ginnaaw moom ca kii di la xamee ni moom amul chance su xarit ndax li nga xam ne jëf na ko ko ñëpp ko waroon benn yoon ci li nga xam ne def na ko moom moomee di Nogay ñu dem déglu ji seeni kàddu te ñëwaat Nogay bu tayee mu wax lii bu subaa mu wax lee léegi man loolu laa comprendre lu moo tax nag ma toog sama ruq ñu bëri di ma xas maman yow dangaa yëg succès wala maman dangaa def nii wala maman yëguma succès parce que man du ma yëg succès ci koo xamante ne tey jii sama nit la yëguma succès amul kenn ku ma yëgal succès non non yëguma succès waaye moom sama digganteeg moom tubaarikàlla macha allah war na ciy sédd lu bari ku ci nekk sédd sama ni may séddee sama digganteeg moom moom na ci séddee noonu na ci séddee noonu man ku ci nekk sama xel damay sédd sama diggante ak moom waaye topp ma ko te duma ko topp xam nga lu tax nag tey laa leen wax li tax bi ma ñëwee woowu ko parce que dañoo jote sénégalais yëpp ne man damay utiliser na bay tey yéen ñi tax taxaw tey di ma xas naan ma woowoo ko dangaa yëg yéen a toogoon ci seen i live ne man damay damay damay euh, damay utiliser na bay yéen tey yéen a toogoon yéen a toogaat tey ne ma naa ko woowaat tey bu ma indi woon ay bagaat teg woo ndogoy teg nga ne dama waaw waaw gis nga de mu koy utiliser ti indi na ay bagage daa bëgg jaay moo tax ma bëgg nag ngeen génnee ma ci seen détail yooyu man lu ma sékkanteeg sama nit sama nit la yem lu ma sékkanteeg sama sama nit la yem du ñëw ci tiktok bi du ma ko waxanteeg ci tiktok bi ci suuf laa koy waxee match bi tas réew mi nag fi mu toll nii liggéey laa gën a tal lu may waxanteeg sama morom ci suuf laa koy waxanteeg moom ñu kaf foo reetaan mu jeex na man ambiance rek laa xam man kaf rek laa xam man reetaan naa xam man bëggee man kaf ak yow man reetaan ak yow man dem sama yoon man lii laa xam du dëgg Sénégal nag la kenn mënta dëkk Sénégal la kenn mënta wax dara Sénégal doo comprendre boo defee lii ñu ne lu tax nga def lii defal lële nga def lii ñu ne déedéet lu tax nga defal lële du dëgg mais moom xam na man xam naa xam na ni ma ko jàppee moom it xam na xam naa man ni ma jàppee laa vie continue mais pour affaire yeneen aw ma seen jot yéen pour may leen bës Deus. mu nekkoon nag semaine bonne nouvelle ci yenn ci ay euh, célébrité ndax gannaaw ki nga xam ne moo nekk Dieyna Baldé gisaat nañu ki nga xam ne moo nekk koddu moom mi nga xam ne dafay joué ci série famille sénégalaise daal dinay am borom kër waa ji nga xam ne moom moo ko daal di takk sax moom kii di Koddo daal dinay xam ne ne dafa nekkoon ka nga xam ne daf koo fan lool ci série boobee nga xam ne moo ngi fa doon ci fan nag la ñu njëkkee gannaaw mu koy nopp ba na mu takkee ñu leen di souhaité un reménage ñaanal seen sëy boobee yàlla na ko yàlla baaxkeel li nga xam ne daal dinay amaat moo nekk mariage yu ki nga xam ne moo nekk Delta Fox moom aussi daal dinay am boroom kër ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla barkeel boobu lay sëy Euh, aux côté de son mari ñu ngi leen di souhaiter un heureux ci li nga xam ne ba tey mbokk yi mu ngi lëmbee internet bi daal dinay bokk kàddu yi nga xam ne kii di ay dara daal dina koy yëkkati jëmale ko à l'encontre de Doro Gueye gannaaw ba mu koy remercier ñu daal di leen fàttali ne moom Racky nag dañu ko daal di jébal ay trophées nga xam ne gagné na ko mu daal di remporter euh, prix li nga xam ne moo nekk meilleur influenceur dans la catégorie média au plus moom mi nga xam ne moom mooy animé ca côté kii di DJ Kheucha ci émission bi am 11 13 foofee ca la 2 TV bi muy gërëm nag ci kanamu borom caméra yi ci kanamu yenn ci ay site internet daan daal dinay sant borom këram bi di Doro Gueye xam le ne nag daal dina koy jàppale loolu mu nekk nag la nga xam ne ñu bëri sax ñoo ngi ko doon xaar encore une fois ñu koy applaudir yenn ci internet yi nag naankaan ne la na wëyal di affiché ne daal moom daal kii di MJ la nopp bi yoon sax dégguñu MJ bi carrément ca turu Doro Gueye la daal di jaax mel ne ni fi ne ni officialisation bi moom rek ki def na li ko war ca kii di Doro Gueye daal la des ñu xaarandi nag ba xam ay fan yi di ñëw ana lan moo nar a xewaat confrontation Cheikh Yérim Seck daal di fa yëkkati ay kàddu ya nga xam ne aussi mu ngay lëmbee internet bi moom nag nee na ñi nga xam ne dañoo jàpp ne waa Pastef yi wala nouveau gouvernement bi mën nañu kaa noot wala ñu noppiloo ko nee na ñoo ne ñu ngi nax seen bopp daal di menacer sax képp ka nga xam ne dangay ngay woowee sa bopp waa Pastef nee na bu ngeen jàkkaarloowee nga saaga ko wala nga wax ko la nga xam ne du ko neex dootoo ko defati sa àdduna ngir daal di kuloox boobu lay débat nag Cheikh Yérim Seck nee na moom ku koy noppiloo jigéen juru ko ci bii lee dëkk di réewum Sénégal donc lii nag ak yeneen ni kàddu yi nga xam ne daal dina ko fa yëkkati ñu gis ne émission bi daal dinay viral lool mbokk internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi ak déglu bi ci Dakar Média di leen jox dig daje beneen yoon incha allah ci seen beneen numéro jërë ngeen jëf